arbitre bi sifflé na Baye Mandiaye Bébé Bismi Baye Mandiaye a ngi dox ci kaw Bébé Bismi Baye Mandiaye Bébé Bismi Baye Mandiaye Bébé Bismi daw nañ jàppante daw nañ jàppante Baye Mandiaye Bébé Bismi eh Baye Mandiaye Bébé Bismi door na ko Baye Mandiaye Bébé Bismi xale yaa ngay xeex Baye Mandiaye Bébé Bismi Bébé Bismi Baye Mandiaye mayu ko dara arbitre daa sifflé rek mu dox ci kawam mbot caxabal na ko Bébé Bismi lu mu bëgg a def Bébé Bismi lu mu ko bëgg a def Bébé Bismi Baye Mandiaye Baye Mandiaye da koy kal kal na ko kal na ko bañ na Bébé Bismi Baye Mandiaye ñoo ngay lewaatoo ñoo nga ñëwata saako Baye Mandiaye mën na léegi waaye demul mebaat na bébé bi ne tekk di ko déglu ma Mandiaye waat na ko ci digg géew gi Baye Mandiaye bébé bis bi deen wax ne Ndiaye Tine daan na Baye Mandione Junior Baye Mandiaye bébé bis bi Baye Mandiaye bébé bis bi bis mi Baama Ndiaye bébé bis mi Baama dem dafa bëgg dem door na ko ku bébé mi jàpp na ko moo ngi biij lu mu koy def sëpp na oh nañu bébé mi tey daa décidé waaye Ndiaye tin tànn ka nga xamante ni ni mooy Baye Mandione Senior Baye Mandiaye gën a ko mbot Baye Mandiaye Bébé Bismi Baye Mandiaye kele ya ngay tànte na baa doo fourne foo bu bari Baye Mandiaye an koy dóor Bébé Bismi daa bëgg a jàpp bëre Baye Mandiaye Bébé Bismi Baye Mandiaye Bismi Ibrahima Ndiaye Bébé Bismi Bébé Bismi am na ñaari loxo jàpp na Bébé Bismi Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye Bébé Bismi Ibrahima Ndiaye na temps ba jeex na na nu léegi ba mi-temps Ibrahima Ndiaye Bébé Bismi dem na ba ci côté saako yi mu taxaw Ibrahima Ndiaye Bébé Bismi Ibrahima eh, Ndiaye Papis sànn na léegi waaye dalul ma Mandiaye daa bëgg a dem Baye ma Bébé Bismi Baye Mandiaye Bébé Bismi eh Baye Mandiaye door na ko léegi kuubu dal Baye Mandiaye Bébé Bismi Baye Mandiaye ngay puus bu mu génn Bébé Bismi dafa bañ ma Mandiaye Bébé Bismi Baye ma lu mu koy def da mbot génn na génn nañu arbitre sifle waat na Bébé Bismi taxawal nga bëree Bébé Bismi Baye Mandiaye Bébé Bismi ñëw na ba ci côté yi mu taxaw saako yi fekkiwul kenn saako yi fekkiwul kenn Baye Mandiaye Bébé Bismi Bébé Bismi Baye Mandiaye eh wéyale na ko léegi moom Baye Mandiaye Baye Mandiaye wéyale na ko Bismi Bébé Baye nga doo fàq na ko fàq na ko Baye Mandiaye Bébé Bismi door na ko Baye Mandiaye Bébé Bismi Baye Mandiaye mbokk yi wala boog Bébé Bismi am na carte avertissement su amaatee beneen làmb ja day jeex Baye Mandiaye Bébé dañoo sonn ni bëreel bu temps bi jeexee da ngay ñàkk àndul ci taxawaay bi Bébé Bismi Baye Mandiaye Baye Mandiaye amatul lu muy perte ci làmb ji Bismi Baye Ma Ndiaye Baye Ma Ndiaye Bébé Bismi Bismi kenn xamatul lii la temps ba day jeex Baye Mandiaye am na ndam Baye Mandiaye am na ndam Baye Mandiaye am na ndam Baye Mandiaye am ndam Baye Mandiaye am na ndam ci kaw Bébé Bismi Baye Mandiaye am na ndam ci kaw Bébé Bismi Baye Mandiaye am na ndam ci kaw Bébé Bismi